convocation bi nga xamante ni moom boobu du jeex man ko convocation boobu noonu ñu koy woowee xam naa ni moom du jeex lan nga koy jàngatee loolu noonu. waaw fi ne nii day comme. Euh, dossier bi moom euh, depuis boobu léegi gars yi ñu ngi ciy wax muy euh, dossier am ak Adji Sarr yàgg na de te ñu mu nekk ñu bari jàpp ni ak càq goo xamante ni si nii <laughs> dañ ko koo rek pour mu pour maanaam di ko ci déranger comme xare comme comme comme def xar yi rek wala kii uh-huh. boo kiiwee yëngatu rek muy keleng keleng <laughs> nga voilà <laughs> heure bu leen neexee yëngal heure bu leen neexee xam nga mm-hmm. loolu aussi tamit yaakaar naa ni ci réew boo xamante ni si nii réew démocratie la mm-hmm. jàpp naa ni euh, loolu amu fi yoon parce que président Ousmane Sonko euh, sénégalais la euh, citoyen la comme euh, bépp sénégalais. Mhm. moom aji Sarr ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo yem ci réew mi donte ni. Mhm. président Ousmane Sonko wala kon Ousmane Sonko nekkul nit koo xamante ni si ni n'importe kii la fii ci fii ci réew mi. moo tax moo tax maanaam ni ñuy traité kaawam. il faut nag mu am différence ak yi ni ñuy traité kon yeneen yeneen kaay yi loolu. mënuñu koo bañal. Mhm. parce que tey jii bu ñu demee ba ni yow yaay chef chef de l' opposition tamit quand même nekkatoo koo xamante ni si wax dëgg yàlla n' importe kii nga ci ci ci réew mi moo tax moom. Euh, président Ousmane Sonko. Mhm. Euh, tey jii nii buñ toogee loo xamante ni si ni mars 2020 la woon. Mhm. Euh, ñu gis la koy xew-xew ci ay bakkan sax faatu ci mu doon te bakkan yooyu noonu ba tey jii nii ñu ngi réclamer li nga xam ne moom moo de la justice. Mhm. mënuñu koo am mu nekkulu lu doy waar loo xamante ni si ni ci réewu démocratie ñu ngi koy jooy noppeeguñu waaye li ci gën a doy mooy que ni au lieu que ni ñu dem par exemple atte. mbir mi mbir mi. Mhm. comme ni ñu ko gisee ci yeneen dossiers yi mu jeex. Mhm. mais dañ koo bàyyi. muy muy muy law di dem te kenn xamul fan la bëgg a jëm te nag li nga xam ni man jàpp naa ni sénégalais yi duñ ko nangu mooy que ni duñ nangu nag parce que li leen taxoon a génn mars buñ ko fàtte. mooy dañoo bañoon ñu politiser li nga xam ni moom moo di dossier bi. Uh-huh. moo taxoon ñu jóg ba ay bakkan faatu ci yaakaar naa ni erreur boobu noonu nga xamante ni si ni uh, suñu kilifa yi defoon nañ ko ragal naa ni wala kon njortu naa ni duñ defaat erreur bu ñu mel parce que gisoon nañ lim ñu coûté ça a coûté très cher. Mm-hmm. très cher parce que mm-hmm. benn bakkan rek. dafa dafa dafa dafa ëpp waxutuma la ak ay bakkan bu ñu demee ba ne fukki ne ak ñeent euh, ñàkk nañ ci seen bakkan vraiment c'est énorme c'est énorme kon tey bu ñu toogaatee ba jamono jii nii ñu yaakaaroon ni euh, wax dëgg yàlla loolu noonu waroon na mën a yee ñu bare mhm. ñu yaakaaroon ni euh, ñu bari daan ci am prise de conscience ñu dikkaat surtout président Ousmane Sonko il faut ñu koy rappeler dafa dafa def déclaration wax officiellement que ni moom il sera candidat aux prochaines élections euh, présidentielles yi nga xamante ni si voilà février 2024 incha mhm. allahu rabbi kon déjà instant bi nii euh, waxuma la waxuma la euh, en tant que chef de parti mais candidat candidat fi mu ne nii buy wax potentiel merci beaucoup mhm. pas pas potentiel sax moom moom mhm. buy wax wala pré Sonko ci boppam bu koy wax dañuy jàpp ni candidat ci boppam fi mu ne nii la ñuy waxal candidat la boo xamante ni ci tey jii nii mi ngi yóotu mi ngi prétendre pour jiite li nga xam ni moo di Sénégal ëllëg naa ni ñi nga xamante ni si ni ñoom ñooy euh, nguurub Sénégal wax dëgg kenn waxul nag buñ àtte tey jii ñun buñ sañoon suba suba procès am parce que mhm. Ousmane Sonko mu def dañ ko war a àtte bu fekkente ni moo def mbir yi leer ñu xam ni moo def bu fekkente ni deful dañ ko war a àtte mbir yi leer ñu xam ni deful parce mais jàppoo ni lii nii dina ko topp wala mu yàqal ko ci carrière politique am jamono jii nii. su loolu loolu loolu la ñuy njort. parce que ah. man jàpp naa ñi nga xamante ni si ni ñoom ñoo yore dossier bi man yaakaar naa ni ci loolu lañuy ñuy la ñuy la liggéey jamono ji fexe. Mhm. Euh, nu ñu nu ñu fexe ba président Ousmane Sonko du bokk parce que aussi tamit. c'est important. tey jii nii ki nga xamante ni si ni moom moo di président Ousmane Sonko ak régime bi fi nekk di président Macky Sall ak ñi mu àndal. Mm-hmm. tey jii président Ousmane Sonko sonal na leen sonal goo xamante ne si ni ñoom bu ñu mënoon am keneen koo xamante ne si ni moom la ñuy léguer les maanaam moom la ñuy bàyyil pouvoir bi ku dul président Ousmane Sonko dañ koy def. Mm-hmm. parce que moom dafa direct avec ñoom buy wax da leen waxal ni carrément. Euh, si bis bu ma toogee ci nguur gi lépp lu fi waay sàccoon da nga ko goqi ku fi amee justice xam nga kooku ko tamit est-ce que du loolu moo tax ñu koy jéem a indil ay. check instant yi bëgg a indiwaat. loolu loolu ba pare nekk na loo xamante ne doy gis ne ñu dàq ci koo xamante ne sax euh, juge euh, en plein conseil ñu ñu ñu dàq ko ci fekk mu waroon juger dossier bi yooyu noonu yëpp buñ ko boo ko jàngatee lan la lay def. c'est des calculs politiques. Mhm. maanaam le président Macky Sall jamono jii dafa nekk di. calculer di tek ay schéma yoo xamante ni si nii parce que xam na ni. moom euh, président Macky Sall président Ousmane Sonko ak surtout. Euh, loolu xam naa daan ci yow est-ce buñ demee ba ci kanam. ni mu écarté Khalifa Sall ak Karim Wade. surtout nga xam ni kenn ku ci nekk da amoon sa électorat wu bopp. Mhm. Dakar tey jii nii Khalifa Sall kenn daal ko xëccoo moom. moo daan voilà moo ko daan téye Dakar. Mhm. Euh, di ci sifaaye gars yi di ci def mhm. lu ko neex. tey jii écarté na ki nga xamante ni si nii moom moo di Khalifa Sall Barthélémy Dias taxaw na nee na moom. il ne sera pas candidat Khalifa Sall moom mooy doon candidat wam su Khalifa Sall nekkul candidat Ousmane Sonko ji na ko loo xamante ni si nii du taxaw di nekk candidat mais day dem jàppale ji président Ousmane Sonko déjà mm-hmm. foofu féetee na boor mu dikk éliminer Karim nga xam ni PDS euh, gis gis nañ gis nañ euh, élection yi ñu génn rek ah oui mi ngi ci 24 mm-hmm. députés je pense xam mm-hmm. nga kooku c'est un poids électoral boo xamante ni si nii tey ji président Macky Sall xam na bu baax que bis bu bàyyiwul ñële moo tax euh, li nga xamante ni si ni moom moo di xam am na si loolu après daan ci ñëw. waaw bëgguma xuus trop. waaw waaw ci comme ay pàcc pàcc la. voilà euh, moom président Macky Sall xam na ni euh, bis bu bu bu bu bu bu bu bu président Ousmane Sonko demee nii nii élection. Mhm. comme gis ngeen coalition inter. intercoalition intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu bi nga xamante ne si élection yi ñu génn moom la ñu moom la ñu moom la ñuy gars yi boo tegalee gars yi wax bu def effet. Mhm. coal intercoalition day day def effet. day def effet waaw ah tey yi ñu nar a gën <laughs> boobu la nar a gën a def effet quand même <laughs> nag xam nga calcul yooyu yëpp bu fekkee bu fekkee. effet dina doy waar de. ah non dafa def effet. te gëm naa ni parce que mhm. gars xam nga gars yi bàyyeegul. Mhm. comme ni nga xam ne léegi bàyyeegul te day gën a def effet. Mhm. <laughs> voilà loolu mooy problème bi léegi nag président Macky Sall pour mu éviter euh, mu defaat effet parce que def na effet pare te defaate defaatee effet ça sera pire. Mhm. li nga xam ni moom la gis euh, bi mu génnee. Uh-huh. il faut nag mu teg ay calcul politique. waaw wéy. Ah loolu bokk na ci am euh, amnistie bi bi ñu junj sànq daan ci ñëw. pour amnistier Karim ak Khalifa ñu dellu si. waaye aussi tamit bokk na ci fexe ba. président Ousmane Sonko moom wax ji yëpp yëpp président Ousmane Sonko nu mu feexee ba du bokk élection présidentielle yi ñu jëm. moom lay kartal président Macky Sall sax moom bu koy bu kii dul bokk te te bu président usman Sonko dul bokk. te Khalifa kii bokk moom sax na bañ bokk moom moom na bañ a bokk président Ousmane Sonko bañ a bokk. bañ a ah oui président Macky Sall jamono ji guddi yi ñu toll. Mhm. man leer na ma ni jamono jii nii ku ni ko woon bul bokk te président Ousmane Sonko du bokk. il sera mu génn suba ni duma def troisième mandat. ah ouais ah, bien sûr. kon instant yi kon su ma la déggee maanaam mooy comme fi toll nii Macky Sall xelam bi yëpp mooy. la euh, menace la menace contre lui. Mhm. Sonko. c'est c'est une menace. Mhm. Mhm. léegi moom xam na loolu ba tax na euh, fi mu ne nii wax dëgg yàlla nu mu mën a fexee lijjanti ba kii di président Ousmane Sonko di bokk. schéma yu mu mën a teg ni ko gars yi di waxee sama gars yi schéma yi mhm. schéma bu mu mën a teg mhm. ba kii di président Ousmane Sonko du bokk fi mu ne dina teg schéma yooyu noonu fexee président Ousmane Sonko du bokk te loolu nag foofu la danger bi nekk musiba mbabbu kumba li gars yi naan musiba mbabbu kumba ndax xam nga histoire musiba mbabbu kumba sax fu mu bokkee fu mu bokkee après danaa loolu danaa jël hors antenne wax la histoire musiba <laughs> mbabbu